amu ko waaye moom ci coobareem la ko ñàkkee nag ñaata nit ñoo toog weddi yàlla tax na yàlla sacré massacré leen mukk ñaata nit a toog ne yaddullahi maxluula yàlla nekk fa di lay man mu yem ni yàlla di lay te mën a fajal boppam di lay nekk fa naan yaddullahi maxluula mu ne déedéet xullat aydihim wa lu'inu bi bal yaddaahu mabsuutataani yunfiqu kayfa yasha xam nga lii mbaax rek ko war ci koo xam ne ka ko wax bu ko neexoon mu ne ko ëff rek mu dem wala ña ko wax bu ko neexoon mu ne ñu ëff rek xeet woowu sax dootul am mu toog fa naan leen waxu leen dëgg li ngeen wax amut man sama loxo ngeen di bàcc ci jëm fépp damay gute li ma yore man yàlla nu ma neexee waaye man yàlla nayu ma wa qaalat il yadullahi maxluula gullat aydihim wa lu'inu bima qaalu bal yadaahu mabsuutataani yunfiqu kayfa yasha yahut yi ñoo ne yàlla loxoom bi dafa daf ko gëx nii mooy gëx maanaam daf ko jël takk ko ci loosam yi du joxe loolu la yahut yi nii mooy gëx yàlla ne leen yéen mën a kàcc bal li fi nekk kañ yaddaahu sama ñaari loxo yi man yàlla mabsuutataani mu ngi ne bàcc jëm fépp yunfiqu dama koy gute kayfa yashaa'u nim ma soobee man yàlla Thierno Saïdou Nourou taal moo daan wax ne yàlla mënul séddale day jël lu bari mu jox Abdou mu jël tuuti mu jox suur mu fekk Seydou Nourou du ko jox dara <laughs> ñu ne loo ci mën Thierno Saïdou Nourou rahmatullahi alayhi wa radiyallahu moo ko daan wax am na yu ci daan teg sax du ko ci teg ndax loolu moo ko sañ. waaw loolu moo ko sañ te wax yu garaaw la te moo ko waxoon nit ñi yóbbooti ma te Thierno Seydou Nourou moo ko doon wax te billaahi moo ko waxoon nit ñi yóbbu ma waaye moom aarif billaahi la yegg na ci ci yàlla moo ko daan wax moo tax yu bari léegi dama koy asaf ndax comme boo ko waxee nit ñi duñ ko mën a comprendre nga asaf ko rek waaye loolu la daan wax mu ne day fekk lu bari mu jox kër mu fekk lu bari mu jox Abdou mu jël tuuti mu jox Seydou El Hadj Abdou ne Thierno Seydou Nourou doxal ko nee bañ demee euh, Côte d'Ivoire nee na ofet recevoir leen nee na ñii juróom-ñaari fan yéen fa def luñ indi jox ko moom Thierno Seydou Nourou fu nit ñeen nag nit ñi daan jógee xam nga wërsëg wi dafa rëyoon nee na luñ ko jox rek mu ne abudu am luñ ko jox rek mu ne abu du am nekkete paa yi am ak moom ñu ngi mer day toj am ñuy respect ko tuuti kase am ñuy respect baal ma rek kase nee na Thierno Seydou Nourou dégg ko waaye waxu ci dara nee na ñuy dem di dem di dem ba bés bi ñuy war a ñibbi biñ ne suba la ñibbi sëñ ab doy nettali mu ne bi biñ ne gannaaw suba la ñuy ñibbi mu ne ko Thierno su ma sañoon nga may ma ba guddee ñu waxtaan mu ne ko bismillah nee na bi guddi jotee ñëpp toog ñu àndal kaw gannaaw suba la ñibbi. nee si sa alaaj dugg ci biir néeg bi génnee yiñ ko joxoon yépp indi jóor ne ko bés sàngam lañ fi ñëwoon diw sàngam moo joxe woon lii mu ngi nii bés sàngam moo ci toppoon diw sàngam moo indi mu ngi nii bés sàngam moo ci topp diw sàngam moo indi woon lii ak diw ak diw ak diw mu ngi nii ba biñ ëffet bi mu ñu invité lam ñu joxoon mu ngi nii ba ci guddi ki fi mujj ñëw lim indi mu ngi nii Cerno Seydu mu ne xool ñëpp ku abudu séddale ko mu ne alaaj Abdu jël am diw am diw am diw am diw am Cerno am yëf yi jeex pëng mu ne ko abudu ana sa bos mu ne ko ma des ak yàlla billaahi wal kitaabi alaaj Abdu bay kor ni ko ma des ak yàlla nee na Cerno Seydou xool ma ngi rus ngeen de rus ngeen ma ni dama def séddu mu yàlla yàlla dafay jël benn lenn mu jox ko kenn mu seet kooku nu muy def ak jaamam yi man Seydou ma jël yépp ma jox Abdou waaye xam naa Abdou du lekk te bàyyi leen léegi rus ngeen jox na leen li mu am yépp mu yàlla lu ngeen di waaye Abdou ëpp la ñëpp di am ci yàlla mu kenn amut na ci yàlla yooyu man yooyu lay roy nañ roy yooyu yooyu moo neex waaye lay sonal billaay daf lay sonal te du faj sa ajo liy faj aajo nit ca yàlla la nekk waaye newul ci loxo jaam ñi yooyu laa bëgg ñu di ko nettali léegi sa benn professeur Omar woo na ma ca Ndar nee na jàngal na la ndeysaan mel na ma wax mu ne ma man su ma déggee ngay wax ci mag ñi damay kontaan am beneen taalibe maam borom Touba bu ma woo Washington li ngay wax ne ko yónnee ma fukki junni jabarama ko indi mu nii ci sama poche sëñ Touba lañ ko tuddee billaahi wal kitaabi du ma fen fukki junni la ma yónnee jabarama ko indi mu ngi nii taalibe maam borom Touba la nee na sëñ Touba lañ ko tuddee. mu ne ma say waxtaan lay déglu mu neex ma lool ay dara yaa ma neex kooku sama jabar la maa ko wax nga ne indil fukki junni ndax danga maa neex dama la soppi man sëñ Tuubaa lañ ma tuddee fukki junni yaa ngi ni lekk guma ko mu tegal ma ci nag ne yëpp seetaan naa yiñ la yekk mu ne ma waaye gis nga am na benn shérif bu nekk ca Mali stade Mali bi lay feesal gàmm moom lañ koy yekk duñ la ko yekk muñal mu muñee lii la ma ci tegal mu ne ma man Mali malien laa waaye taalibi Sëriñ Tuubaa laa Sëriñ Tuubaa lañ ma tuddee xoolal te Mali na dëkk mu ma xoolal te man dama la sopp mu ne ma te dem naa eh, daaw ziyaare ji sa maam Seexuna Tijaani te yow yaa tax ma dem fa ziyaare ji mu ne ma te sëñ Cheikh Ahmad Bamba lañ ma tuddee xam nga taaliba murit moom dalay wan jeex na takk ci sëñ Touba taaliba Tijaan kañ moo fiy nekk di xiin xiinal naan nag sëñ Babacar wala jab du ñemee wax kuy sëriñam waaye taaliba sëñ Touba dalay naan sëñ Touba mooy sama sëriñ lu mu am jël te loolu mooy dëgg waaw kooku bu déggoon may xas lu bokk ci seen dina ma yónnee teraangam nañ waxante nag moom laa bëgg ñépp di ko waxtaanee mu ne ma man su ma déggee ngay wax ci mag ñi damay bépp moo tax ma yónnee la fukki junni yooyu te lu ma xeeb la kon yal na ko yàlla fay mu ngi may seetaan am na keneen ku ko def ci France moom it mu may seetaan yooyu rek doy na sëkk nag kon su ko defee kon daal maxtaar eh, ñu yemale foofu kàddu yi